comme nak dafa naaj tay no ngi tollu ci suratu ibrahim yent tu ibrahim lañu tuddé sar jangan wi ta xam ngeen ko ndax jang nañ ko ci ginnaw ak ci euh yoon yi jaaroon ci tafsir bi suratu ibrahim makka la wacce mi ngi nek fukki laaya ak mujibu juróom fukki laay la ak juróom tolloog mu jiibu mu jiibu miim 40 jin 3 ya 10 ba 2 muy 55 muy saaru yu donte saar yëpp saari yu la waye tawfiq bi ci am moy xam ngeen ni 55 moy mu jiibu xam ngeen ni yalla fi mu fi ay yi mu tuddu khairu ci alquran 55 lay Yalla tuduna batu khayr jurum fukki yon ak jurum ci bir alquran ñu tollu nak ci sar woowu aus ba'da aus billahi min asheytaani rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam raa lañu daan wax lañ ci wax yalla mo xam lim ci nam kitabun موم ده خم جيني خبر لا جوهان دانيو حسف مبتدا ما تي سونو واخين تي غرامير موي تيري بي ني تيم ديكو جانغ دي القران كتاب تيري لا بو خامني انزلناه واتينا نكو نون يالا وني نون داي ماغال بوبام واتي نانكو اليك تي يو يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم lan moo tax nu wàccee téere bi ci yow yàlla ni li tuxrija ngir na nga génnee annaasa nit ñi mina zulumaati ci lëndëmi kéefër jamu la ko def waaye ila nuuri nga jëme leen ci leeru ngëm yàlla looloo tax alquran wàcc waaw su fekkee alquran dafa wàcc ba pare ñu wàccee ko pour lii ba pare loolu amatul lan moo tax amatul yàlla dafa jël yonent bi gën ci yonent yi mu yonent yàlla Muhammad mu jël téere bi gën ci téere yi mu jox ko ko muy alquran mu yónni ko ci xeet wi gën ci xeet yi mooy ñun kon su fekkee dem nañu ba am ñuy génn ci xeet wi ñu yées xeet yu jëkk yële nga xam ni seen yonent yonent bee leen gën ana lan moo tax ñun gënuñu xeetu ñooña ci ñennat ci ñun mooy kon li taxoon téere bi wàcc day téere bi ma nga ca loola waaye ki ko wàccee itam di yonte yàlla Muhammad la taxoon yàlla dénk ko ko ba mu wàccee ko ci ñun moom itam ma nga ca loola kon su fekkee lim bëggoon dafa dajalewul ci ñun ñëpp kon ñun ñoo nekkul ca loola kon ñun ñoo nekkul ca loola léegi nag lan moo tee ñu nekk ca loola génn googu ñu war a génn sunu bopp ci wàllu wàllu kéefër te genn ci walu kéefër gi du dara lu dul li yéefari def diko ko bëgg nu ak ñom su fekke dem nañu ba ñoo safaanoo ak ñom da mel melna kon la taxone ah euh, yeneente bi yalla yabal ko ci ñun ñun mom déggaluñ ko ci lool ta li waraloon ñu déggal ko li warona tax ñu déggal ko mi ngi fi damooy alquran Limu mu waroon wax ban gëm ko xam ko ràññee ko war a tax ñu jóge ci luñ nekk loola jàll na te mooy yonent bi am na moom kon léegi sikki bi ci ñun la nekk waaye nag boo déggee lim ci teg xam ni sunu boroom bu yonent bi doxalee lépp ba noppi nag lii tax mu sotti nag ci loxo sunu borom la nekk loolu moo tax mu teg ca bi idni rabbihim bi izni googu ak génn gi ñuy mën a génne ci kéefër dem ci ngëm yàlla gëm ko nan ko war a gëme loolu day ame ci ci digalu sunu borom ci dogalu sunu borom kon sabab moom am na téere bi ñëw na yonente bi wax na ko dégg nañ ko yooyu yëpp ay sabab la mais pour sabab boobu dëggu nag léegi loolu day ame ci ndigalu sunu borom dana waral nag sunu borom bañ laa jox bañ laa orienté ci nga jub mooy nga ñàkk a mel ni mu bëgg mu seetaan la ca ci maandu parce que su choisir moom sunu boroom jubalu la ci ci ci lu dul benn sabab kon wa maa rabbuka bi zallaami lil abidi wax jooju day nekk loo day wax jooju jëf ji day safaanoo wax jooju te sunu borom loolu amul ci ay waxam moo tax mu ni kitaabun lii ab téere la boo xam ne ansal naa wàccee nañ ko nun yàlla ilayka ci yonent yàlla Muhammad lu tax li tax li tuxrija ngir na nga génnee anaasa nit ñi mina zulumaati nga jële leen ci kéefar jàmm la ko def ndax dafa ak kéefar dafa amul benn yoon ak caay-caay dafa bare ay façon dafa bare toujours rek zulumaat waaye nuur mufrat la koy def mina zulumaati kon ñàkk gëm yàlla noppalewul yoon yi nit mën a jaare weddi dafa bare waaye yoon wi nit di jaare di jub benn yoon rek la benn yoon rekk la amul ay subul benn yoon rekk la sabil la moo tax mu ne ila nuur mu orienté leen jëme leen ci ngëm yàlla waaye pour ngeen gëm nag bi isni rabbihim day amee ci seen digalal borom fan la leen jëmee ila siratil mus ila siratil azizi te loolu mooy yoonu ko nga xam ne moo not ñépp ci nguuram mooy yàlla alxamidi yàlla mi nga xam ni moom lay sant tamu yeyoog cant ba defal ko boppam ba noppi alhamid ay almahmud mu daa tëb ni allahi su fekkee dafa maas ni bopp laay bi dafa tëb ni allahi kasra ko su dee kasra googu ngay laaj kasra googu kon day nekk badal wala mu nekk atfu bayaan su la neexee nga ne allahu rafaatu su boobaa day nekk mubtada soo ne allah yàlla moom mu ñu ni tekk del del nga ne allazi mooy buur ba nga xam ne lëxoo na ko maa fi samaat maa fi at muy xabar ji daal dugg si su dee allahi la danga naan kooke nga xam ne moom lañ sant allahi mooy yàlla wax ja jeex nga ni yàlla moomu nag allazi mooy buur ba nga xam ne lëxoo na ko ci moomeel maa fi samaawaati mboolem lu nekk ci biir asamaan wa maa fil ardi ak lu nekk ci suuf samaawaati da koo jam o ard toujours da koy mufrad te bu ne juróom-ñaar la lan moo waral loolu mooy asamaan bu nekk ak morom ja dafa am distance suuf ak moroom ja nag amul benn distance dañoo sësaloo jàng ngeen ko démb suuf bu nekk ak morom ja amul distance bii day jeex bi topp ci looloo tax mu def bii muuf radd def bii jam yàlla moom moom moom nguuruk asamaana la ca nekk wa maa fil ardi ak eh, lépp lu nekk ci suuf wa waylun mbugal ma nag xur wa ca safara nee nañu aw xur la wu tudd waylu ca safara lil kaafiriina ñeel na ñi nga xam ne ñoo waroon a gëm te gëmuñ maanaam ñoo weddi yàlla min asaabin ñu fay jële nag am mbugal laala moom mbugal la shadidin bu tar te metti te ñooñu yéefar yooyu allazina lil kafirina allazina yéefar yooyu mooy ña nga xam ni yastahiboona dañoo tànnoon ci cofeel alxayaata dund ga addunyaa aji jege jeex te mooy àddina ñu favoriser ko alal aaxirati ci kaw dunduk alaaxira ga nga xam ne du jeex yamuñu foofu de wa yasuddoona ñu dëdduloo nit ñi an sabilillaahi ba sànk leen wëlif ñuy jaar ci yoonu yàlla yoon wu jëm ci diine suñu borom te mooy lislaam yamuñu foofu de malgré que dugguñu ci diine jaaruñu ca waaye xoolal waye ba xoonahaa ña ngay sàkku yoon wa ña ngi koy ngi koy wutal iwajan ay sikk waye koy sàkkul iwajan ay sikk iwaj mooy ay dëng-dëng dañoo jàppe diine mu dëng waaye waye ba xoonahaa ña ngay wutal diine kon xam nga iwajan ay ay ay dëng-dëng kon diine amul lu dëng sun ko koy xol ñom dañ ko fa tek di ko xool nit léeg nit bëgg dag sa lox mu jiñ la sacc léeg nit bëgg dag sa lox ci misal rek lay joxe nek ci l'islam bëgg dag sa lox mu jiñ la sacc waye loxam du tab dag da ana preuve ya moy sik yi ñi tek ci l'islam ngir bëgg ko ngir bëgg ko mankel ak bëgg ko soufel sik sak sik yoy ñuy ñuy def noonu ana fan la ñu jële ana fan la ñu jële ay preuve loolu moo tax ñu ni l'islam diino violent la yéen a koy dégg lislaam du diine jàmm li bañ na ko yàlla préparé woon na ko yàlla du préparé ci waxin mu mën a dégg rek laay wax yàlla nee naa du préparé yàlla dara wéesuwul ci moom yàlla dara nekkul ci moom ay démb ak tey lépp dafa teew junni at téeméer dafa teew yow kay yaa am tey ak suba ak démb ak bërki démb ren ak déwén ak seekal yow kooku yow yaa koy dunde waaye sunu borom moom du loolu kon xam na lépp moo taxoon diinu al islaam diinul islaami diinul islaam mooy jii ñu nekk te mooy jàmm kon kay su fekkee ñi ngi koy xool yeneen i bët dañ ko koo sàkkal moo tax mu ne wa yabghuunahaa iwajan ñi ngi wutal diine ay sikk ulaayka yooyu la gaay di wutal diini sikk fii dalaalin ña nga continuer di nekk ci cànkote boo ne ñu ngi ci cànkote kay ñoom bi ñuy wutal diini sikk fekk nañu sànku ba noppi kon fii dalaalin ñi ngi continuer di nekk ci sikk sàkka ci sànkote baa ngi den goo xam ni day gën a sore dëkk ñu jëm ci laay boo xam ne euh, aaya bu bare coow mooy wama arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmi li yubayyina lahum fa yuddilu llahu man yashaau wa yahdi man yashaau wa huwa al azizu al hakim yàlla ne wama arsalna mosunoo yónni ñun yàlla min rasulin ci benn bu yonent illaa bi lisaani xaw mi yi lu dul dañ koo yónni pour mu waxe lu xab làngu nit ñiñ ko yónni waaw ñu ni ah kon bu loolu amee ñun kon yonent bi ko ci ñun ndax diggal mosuñoo yónni benn yonent lu dul dañ koo yónni su demee di waxat ak ca ñañ ko yónni mu wax ak langue ba nga xam ni moom la ñooñu dégg ñu ni kon wax ji mooy kon nan xool wax ci wax ji mooy yonent bi kon dégg na làng yépp ñu ni dégg na langue yépp de xëy na langue yépp ma na ko wax mais turc mosu koo làkk ñu ni kon xanaa kon ñooñu bokkuñu ci ñu ne du loolu de wax ji du loolu ba tey wax ji mooy yàlla yonent yi jiitu woon la ni yonent bu ma ci masa a yónni làngu ñama la yónni làmmiñ booba laa la wax nga làng booba laa wax nga wax caa ñoom pour ñu mën laa li yu bàyyi na ngir na mën a faram-pàcce ngir na mën a leeral santaanee teree lahum ñeen leen parce que bu ñu waxewul seen làng duñ ko man ba mu des yonent yàlla Muhammad ñu ni loolu moo tax jàng nekk farata ndax da ko yónni kaafatan linnaas léegi nag mu jox ko benn téere bu ñuy wax alquran muy arab pour mu war cee wax ak ñëpp ñëpp bàyyi seen làng war a jàng làngu alquran pour mën a déglu si li yonent bi wax ñu ni lan moo tax mu wàccee ko ci alquran ñu ni alquran mooy langue bi gën a matale ci langue yi mooy langue bi gën a ay matière ci yi mooy làngu bi nga xam ne waa aljana moom la ñuy làkk ñu ne comme langue bu riis la loolu moo tax yàlla tànn ko wàccee ci alquran te kon nag langue boobu sàkku xam-xam farata la ci jullit bu góor faratal la ci jullit bu jigéen te xam-xam boobu mënoo koo xam lu dul da ngaa jàng arab ñu ni kon boo jàngee arab rek yonent bi dana mën a wax naa yow da nga dégg li mu wax kon ñu ni kon mi ngi ci mi ngi ci yonent yi nga xam ne yàlla nee na du ma yónni benn yonent lu dul dama ko yónni pour mu wax ak ñam nga ko yónni muy wax ak làng ba ñu dégg ñu ni kon moom ci la mais dañ koo tànn langue national langue boo xam langue national dëgg làng mooy langue arab mooy làng bu ñëpp war a mën a dégg ndax diine ci la wàcc ñi ngi wàccee ñi ngi ci liggéey diine ci làngu arab ak yeneen jataay yoo xam ne buñ ko toppee ci laay bi duñ fi jóge waaye daal wa maa arsalnaa mosuñoo yónnee ñun yàlla min rasulin benn yonent illa bi xaw xawmihi ndaree bu dañ ko wax loo làngu nit ñañ ko yónni li yu bayi na ngir na mën a expliquer ngir na leen mën a déggloo lahum ñeel leen lam bëgg a expliquer ci diini waaye su waxee loolu ba pare woote ba ñu gëm ko nit ñi wuy si ko ñii gëm gëm ko ñii weddi weddi ko yàlla nee na loolu nekkul ci loxob moom mi ma yónni nekkul ci loxob yéen ñu koy wuy si Lol, ci sama loxo la ne motax tax mu ne fa yu dillu dana sank Allah yalla man yasa ko ko neex wayax di, dana jubal ca wote ba man kep ko xamne yasa wu neex nako ñu ne waaw lan motax mu ne waxo mom yalla al azizu moy ki not ci nguram ga ba nga xamni moy ci nguram ci dogalam ñu gëm ca la ñuy gëmi alxakimu aji xereñ ja nga xamni ñi ñàkk gem ci lañi la gemi ndax bu leen de duma ëlëk mu dëgg tànkam seen ñàkk a gëm yàlla commencé di joxe ay preuve ci ni moo yónni woon yonent yi mu ne wala xadd wallahi dëgg la arsal naa yónni woon nanu nun yàlla kan lañu yónni woon mu ni Muusaa yonent yàlla Muusaa bi aayaati naa ñu boole kook suñu kaw kaawteef yi juróom-ñeenti kaawteef yi juróom-ñeenti kaawteef mooy kéemaan jàngoon nañ ko ci gannaaw lan lañ ko waxoon an mooy axarij boo demee na nga génnee xawma ka sa nit ñooñu di giir banu israil mina zulmaati nga génnee leen ci lëndëmu kéefër ila noori nga yóbbu leen ca leeru ngëm yàlla ga wa sàkkiruhum na nga leen fàttali bi ayyaamillaahi ci bisi sunu boroom yemu leen joxee xéewal ñu koy dund inna fi saalika naka nekk na ci fàttaliku lu wees la aayaatin ay kaawtéef li kulli sabbaarin ñel képp koo xam ne muñaakoon nga ci topp yàlla shakoorin koo xam ne santaakon nga ci xéewali sunu boroom sabbaar ak shakoor siixatul mubaalaxa faal ak faul faal sabar faul shakur sante sante amna solode? solo de sa <laughs> beray de net dafa am ben sëriñ mu am nak ñaari talibé ñew bu ñewé fekk sëriñ bi nak ñing ko jox enveloppe bu 10 gan gan gan gan ñëw nuyoo sëriñ bi daal leen di fay jàmmanteeg ñoom ni kenn ki waaye nanga def na nga def mu ne ko ah sëriñ de maa ngi fi sant rek di sant rek mu na ko ah mu ne waaw ah, mu ne ah cant da day waral ndool leent mu ne keneen ki yow na nga def mu ne ah ñoo ngi fi muñ rek mu ne ah mun noo ngi fi muñ rek de ñun de sëriñ ñun de noo ngi muñ rek waaw waaw ànd ak yàlla di muñ rek mu daal di yëkkati enveloppe bu dis gan ñaana ki sant mu ne ko maa ngi mu ne ah, sant day war a ndolleent yow ko bi garde ko yow mi muñ nag yow li nga am kenn amu ko yow la yàlla àndal ay na laa maa moom yow dëgg dëgg nag yow mii la yàlla àndal nag jekk baagi sëñ delluwaat ci jàmm waaw na ngeen def fi sant rek sëñ bi ni gees ci do muñ naa waaw na nga def nak mu ne sëñ bi ma ngi fi sant ko muñ rek tay na cyant gi parce que bëgg na benen enveloppe ndaysan sant dafa am solo aha yalla ni was kur wa wa isqala waaw gi dana nan wa fatlikul tuddal ci bil alquran id qala is jamono ba nga xamne qala waxna Musa na yalla Musa. ñan la waxal li de xaw mi hii ñeel nitam ña lan la leen wax ne leen yéen uskuru fàttaliku leen niimatallaahi xéewalu yàlla ga aleykum ga wàcce woon ci seen kaw bokk na ca is jamono ba nga xam ni anjaakum musal na leen moom yàlla min aali firawna ca gaayi firawna yu kàccoor ya ñoom ñi nga xam yasuumuunakum toggoon na leen soo al mbugal mu ñaaw ma ta bon mbugal mu ñaaw ta bon lan moy wayu sabbihuuna dañu daan rendi akum seen doom yu goor ya wa yastahyuuna ñu fa daan wacci akum seen doom yu jigen ya lan mo waral lol moy fir'auna dafa togon ba ben set kat setal ko ne ka yow de sa nguur gi dana fole dana daanu te góor a koy def waxambaane wii duma ko ci wóolu léegi na bëgg gu bëgg nguur ga ak falu gu mu bëgg falu ga tax na mu daldi lànk kaare bañatee bàyyi jigéen bañatee bàyyi góor ku juddu rek ku juddu rek ku dan di góor mu rey la ku juddu ji jigéen mu bala fa waaye gis nga bi yàlla namee la mu namm ci xikmaam moom ka ko rey folli ko daaneel ko moo ko yar ci biir këram mu yont yàlla musaal comme nanga xam ni noonu ngeen ko jàngi looloo tax mu daan rendi góor ñi di fa bàyyi jigéen ñi wa fi saalikum yàlla na nekk na ci musal gi ma leen musal balaa un ab nattu wa fii saalikum nekk na ci mbugal moomu ñu leen teg ñu leen koy mbugal balaa un balaa am nattu boo xam ne asimun bu rëy rëy la min rabbikum bu tukkee ci seen borom wa tuddal ci alxuraan is jamono boo xam ne te asana xamle na rabbukum seen boroom lan la xamle mooy la in shakartum yàlla moo ne giñ naa ni ndeem sant ngeen ma ci xéewal yi ma leen defal xéewal yi yàlla may nit ci xéewal yi xam ngeen ban moo ci ëpp doole xéewal yi yàlla may nit bi ci ëpp doole mooy nangoo wéetal yàlla nangul ko nguuram nga ak topp ko mooy xéewal bi ëpp doole ci xéewal yi yàlla ne nag su ngeen santee ci xéewal yooyu ma leen defal تموي نجين سامانغور نانغو ما توبو لا أزيد أنكم جناني دنالين جنا دولي أكيل تموي نجين دعين دي جنا جم يالا سنت يالا تي خيول نجم جم لا دفع داي تها جنا جم مي بين لا إن شكرتم لا أزيد أنكم fi mu ne oustaz bàllame wala ñoom imaam moor ak ñoom sëñ sëriñ ak ñii fii ñi nga xam ñi ngi seetaan soo ni suñu tamoon tam ñu ni waaw yéen ñii kaay leen ñu raxas alxuraan ci seen biir xol bàyyi leen ak seen ngëm nag waaye dootu leen mën a liir alxuraan te kenn ku nekk ñu jox la soixante-dix mille milliards est-ce que da ngeen nangu yéen ñi may déglu kuñ ñëwoon kaay nu jël alxuraan ci sa biir xol dootoo ko xam tañu jox la soixante-dix mille li ma mën a waat ci billaahi wallaahi tallaahi xawma kenn de waaye xam naa ni ñii moom duñ ko nangu te yaakaar naa ñeneen ñi ci des itam duñu ko nangu kon na xéewal goo xam ni toll na na man alxuraan nit amul xéewal gu ko raw nit amul xéewal gu toll na mën a gis alxuraan xam ni kii liif la kii laam la kii hasaqeer la kii nàngam la xéewal bu ëpp boobu nit amu ko xéewal bu toll na am doom ku ni bii ne sa doom ñu baal ma rek ci wax ci nit ki dafa amoon benn doomam tey macha allah mu wàññeeku dara des si mu teg ko ci jaat di ko suuli ci armeel yi benn waaye ni bari ne ko eh seigne bi damaa bëggono a wax ak yow tuuti man dama laa bëggono jox 70000 milliards ta nga jaay ma néew bi ma suuli ko fi ci armée ta pax mi ngi gas mi nga gas gis gis nga ko mom gis na pax mi nga gas pour rob ko ca pour rob ci sa dom bi ki jënd xalé bi 70000 milliards soko joxé bu ko jëlé après fa la koy sul même pax la te ñeem ñi koy jullee ñoo koy ni nga doon ànde ci rob bi ca ngay ànde ci rob bi ña ko doon suul ñoo koy suul kon lan mooy changement bi soixante-dix mille milliards la lay jox pour jënd ko est-ce que da ko nangu kenn du ko nangu kon xéewal bu toll noonu bu la ko yàlla defalee ay cinq millions ay cinquante millions ay yooyu moom comme soixante-dix mille milliards mënoo koo jaay néew bi nga xam ni sa loxo du ca génn ñi ko doon rob daal ñoo koy rob waa ji daal ba mu ko jëndee fee la taxaw defu ci dara lépp yaay continuer di ko def te encaissé nga soixante-dix mille milliards doo ko def kon nit lu baree bare xéewal yi ko yàlla defal mu war cee bàyyi xel war cee delloo suñu borom njukkal seytaane da koy da koy takk kat day bañ mu xool yooyu maa ngi koy nettali benn jour ngeen baal ma waa ji ñëw ni ji jooy toog fi ni ma man dal sëñ bi dafa am luma ma je manekal na mun euh, man dal fan yeb sama kër cin tàkku fa sama njabot gi ani ñu réeruñu sama doom sama jabar demul marché xam nga loolu lépp benn wax la ye ñi jang bala xam ngeen loolu ben wax ma li nga wax lepp da ak cant yow day da nga ñew rek pour sante ci yalla ma lutax nga wax lool mi ngi joy ma ne ko nee nga sama kër ci tàkku fa mu naa ah, ma ne ko gis naa ñu amul kër di luye mënatuñoo fay bañ génnee leen yow am nga kër nee nga samay doom añuñu réeruñu mu naa ah, ma ne ko gis naa kuy ñaan fu nekk di dugg lu xalwaak joxe ay millions pour am doom yàlla dénk ko ko kon ba tey yaa ngi ci cam nee nga sama jabar demul marché mu naa ah, ma ne ko gis naa ñoo xam ni boo fu lu nu am def nañ ko ci weexal ndax bëgg jabar fu ñu dem ñu dàq leen waa ma ne ko ñetti yii kon lépp sant am nga kër am nga doom am nga jabar dana doon jooy mais dafa mujj yàgg mu jox ma loxo ni ma sëñ bi ñaanal ma def bàyyi jooy yi ah ma doora a def ak moom la ma yàlla may ma jekki ba ak ma dox ba ak ma gisaat waa ji daal am coppiku lool coppiku daal waa ji mbubb yi tabaarakallaaw mbubb yi rafet na waa ji yaram soppiku na waa ji firi na ma taseeg moom nuyoo ma ah saa waa ji na nga def mun ma <laughs> sama waaj sant rek maanaam mu ma daal sa wax ja daal yàlla da cey def tawfiq xanaa mun ko déet wax ja dafee fekk tawfiq dafa caa fekk caa fekk lépp mun ma daal tabaarakallaahu fii ne ni may sant yàlla ma ne ko cant gi nga bàyyi xel di ko sant yàlla moo tax yàlla dolli la ay xéewal moo tax la in shakartum la azidannakum dafa yaatu su fekkee sa xel mi ma jox la rek benn benn benn misaal bu ndaw xel mi la yàlla jox soo ko jëlee delloo ko yàlla ci topp ko ay digleem bàyyi ay santaaneem loolu sant yàlla la moo jox mi sax xel di delloo ci sunu boroom xel mi day sant foofu xel mi day gën a duy day gën a root day gën a am xam-xam yonent bi moo ni yaa insaanu atia rabbaka fa tusamma aqilan wala tusiihi fa tusamma jaahilan jaahilan soo bëggee nekk intellectuel dangay nekk toppaakoonu sa boroom kon ñu xam ni kon ndeke am xel xalaat yàlla xalaat ci wàllu àddina day développé xel mais boo bëggee sa xel dof nag ci biir àddina da ngay xalaat lu munta ne kon xalaat ci wàllu yàlla ndekete yoo xalaat ci mbirum yàlla ak toog di xalaat sa borom day gën a duy sa xel ay leer da ngay gën a nekk intellectuel ci ngay dema ba imaginer xam-xam yoo xam ne da ngay jekki-jekki rek di ko wax muy nekk su boobaa dangaa topp yàlla ci sam xel sant yàlla ci sam xel yàlla dolli la mooy la in shakartum la azidannakum wala in kabartum bu fekkente ni bii ni da ngeen a weddi xéewal yi ma leen defal inna azaabi naka sama mbugal ma man sunu boroom la shadidun aji tar la yàlla ni mu ci teg nee boo weddee xéewal yi wala defal sama mbugal dafa metti mooy su dee dama laa jox alal nga beew santoo yàlla yàlla day jël alal ji inna laa laa yu xayru maa bi xaw mi xattaa yu xayru maa bi waaye bi am fusi yàlla neen du ma tëb ki foqat ci xéewal ci loxob kenn lu dul dafa bew ci xéewale def ca naka sa nu dul noonu bu la yàlla joxee am xel xalaatoo ci yàlla defoo ci dara day mu jàgg xel mi day wàññeeku xel mi day naax saañ foo fekk nit ku mage ku nangu la topp yàlla balaa dee bu fan yu guddee day naag waxuma ne nag ñu naag ñëpp dañoo topp seen borom nag waxuma lool mais foo fekk jàngkatu alxuraan toppkatu yàlla lu mu gën a bare ay at xel mi gën a baax kon duggul ci wala in kafartum min azabi la shadid foo fekk borom alal juy topp yàlla du mooy yàlla ci alalam di joxe asaka di sarxe doo mës a dégg boobu daanu man maa la ko di joxe asaka di topp yàlla di doo mës a dégg ni daanu waaye di am alal doo sarxe ngistal rek yow looy def ngistal la doo sarxe doo maye doo joxe asaka doo leble te loo romb këf ko boole sa alal del xool del xool ci aaya ji lay dugg wala in kafartum je ci lay dugg yàlla ne bu dee dama laa jox alal nga foyee ko ma jox la ngëm nga foyee ko ina asaabi la shadid mooy dama koy nangu ci yow wa qaala wax na Moussa yonent yàlla Moussa ñeel nitam ña in takfuroo ndeem weddi ngeen antum yéen laa wax tàkkit la waman ak képp koo xam fi laa di nekk ne ci suuf si jàmmi an mboole seen yéen a ngi nekk ci suuf yépp su ngeen weddi woon yàlla du ngeen ko topp fay na laa naka yàlla la xanniyun ku giijal la xamiidun ku ñu sant la wëlifi seenu cant ku woomal la wuuteeg li ngeen di def julli doyewu ko dara asaka jëm leen di sant doyewu ko dara sant sàbbal ngeen di sàbbal yàlla doyewu ko dara teewul yàlla di yàlla ca sàbbal gaa ñàkk a gaa ci yam teewul yàlla am alal ba mu doy ndaxte asaka jaag bañ a asaka ja moo ci yem moo tax mu ni in takk furoo ndéem da ngeen a weddi antum yéen waman ak mboolem ñi nga xam ne fil addi nekk nañ ci suuf jamian mboole seen ñoom ñëpp ñu bokk weddi yàlla fay na laa naka yàlla la ganiyun aji giijal la mooy aji woomal la hamidun ko ñu sant yàlla ne alam yaatikum istifaamu taqriir a ngoog alam yaatikum ndax dama leen dikkal ndax da dikkalul akay ah dikkal na leen ngay wax nabawul la siina istuwaaru ak jaar-jaaru gaa ya nga xam ni min xablikum ñoo leen jiitu woon mu daal di xaw mi ba dal la xaw mi mooy nitu yont yàlla noox ña seen histoire jàng ngeen ko waadin ak giir aat muy nitu yont yàlla huut ña samuud jaaru na mooy nitu yont yàlla saalix ña wala zina ak histoire gaay nga xam ni min baadim ñëw nañ ci gannaaw ñoon histoire yooyu yonent ak ñi nga xam ni ñoom la yàlla mbugal ci ñàkk gëm ñàkk topp yàlla bare na laa yàlla yaalamuhum ba kenn xamul seen lim ila laa ko du yàlla te ñu de jaatum dikke woon na leen rusuluhum sunu yenente ya lan la leen indiloon bil bayinaati ci ay lay yu leer nàññ yu waral ñu war leen a topp ci gëm yàlla fa raddoo fa raddoo ñu ub ay dem seen loxo ya fii afwaahihim ca seen kaw gimiñ ya faraddoo ñu delloo ay diyam seen loxoy fii afwaayam ci seen biir gémmiñ ya déedéet faraddoo ñu ube ay diyam seen loxo ya fii afwaay boo demee ci muqaddimatul kokkiyu dala ni fii dana nekk palaasu ala ala dana nekk palaasu fii kon fii afwaayihim ay ala afwaayihim bu leen yonentee waxee ñoom ba ñu gëm ba ba defe ni gëm nañu dañuy daal di jël seen loxoy daal di sar xolle dal dal seen gémmiñ yi laayi laay kaay leen dégg rek li waa ji wax nga ne lan waxaatal yow bu gaa yi ñëwee loolu ñuy wax naan diw dégg leen ñëw leen nag aaya wàccete na ni ko gaa yi daan waxee ndeysaan ñoom lañuy daan loolu lañ daan def faraddu aydiyahum fii afwaayim waxaaloo ñu wax ni innaa naka ñun kafar naa weddi nañu ñun bi maa ca la nga xam ni ursiltum yónneef na leen yónneef nañ leen bihi ca loolee buñ demee ba yonent woote ba ñu wax loolu ba ñëpp ñëw ñu ni eh ñun gëmuñu leen yonente bu ci masa woote rek ña la weddi taxaw nañ sa kanam ñi la gëmuñu la way naa naka ñun la fi shakkin ñoo ngi sikki sax da ñoo ngi ci muribin gudi aji tardi sikki sàkka mi maa ca la nga xam ni doona na yéen a ngi ni woo ilayhi na ci kon shakkin muribin muribin ak shakkin dañuy ñaar yu bokk lu ñuy firi waaye alquran day waxe noonu kon da nga naan wa inna naka ñun la fi sakin ñoo ngi ci sikki sàkka muribin gude aji tarji sik sak sàkka mima ci lan lañu sik sak ci li nga xamni ni taddoona naa yéen ngi ni wo ilahi jamin ci lolé te modi ngëm yalla ñun ngëm yalla gi ni wo duñ ci jëme day ñun sax am nañ ci dut mi ngi mel na gaay ñu bal ma lélé gaay di fajj fajj mi fi fewar gaay ni ci deug deug mirum corona mom legi sax ñoo ngi ci am ay dut am nañu wax loolu donte lee amul lu ci war a nekk dut loolu moom ñoo xam ñoom ñi ko xam ñun moom daw rek lañ nekke daw rek corona moom daw rek ak ñaan daw rek ak ñaan yàlla na ko fi yàlla jële xaala tontu na rusulum seen yonent ya ni leen lan moo tax ngeen di sikki sàkka afillaahi moo ndax day nekk ci mbirum yàlla sàkkun sikki sàkka si faam an inkaar la afillaay xam ngeen ni nekkul ci yàlla sàkkun benn sikki sàkk a sàkkun fillah a sàkkun moo ndax lu toll na deewituwee ci sikki sàkk fillaay yi dana am ci yàlla yàlla mi nga xam ne faatiri samaawaati moo bind asamaan bii leen tiim xam ngeen lu daan du tax lu gën a bare yonent buy wooteeg ak lu bare bare daan tudd asamaan a suuf mooy mboolem luy yéeme asamaan a suuf a ci gën a yéeme ci lu yalla bind waxoon naa leen ko fi yalla asaman ak suuf gis nga yalla li ngay gis ni ci ay beuk xarak nagak ay ay sànqleñ ak melantaan mi nga xani temir téeméeri giir la temir téeméeri giir la jaan 5555 mille cinq yi gis nga yoyu boko moy li nekk ci geej li nekk ci jéeri ji ni mooy asakay mbindeef yi nekk ci waxuma lim bu bare maa ci xeet laa wax fii ba a ngi fi xaar nga fi nag nga fi boo ko limee lim ba mu pare mooy asakay li nekk ci biir géej waaye te gunóor yi yëpp yow bu ko xeet ak ngootoot yu taw yi ak yi ndaw ndawaan nga xam ne doo leen gis ci xeet yi lañ bokk de am nañu ay responsabilité di ko dox bu yow ta ta loolu dafa doy coronavirus si si bor la bokk mit yooyu nag yàlla corona bi wax naa leen yàlla dafa màgg a màgg rëy rëy ba kenn mënu koo gis waaye lu mënu sant nu bañ yàlla daan nuy indi corona mu tuuta tuuta tuuta tuuta tuut ba kenn mënu koo gis ba pare li ci gën a garaaw muy mbindeef na ñun mu ñëw lu mu sant nu def ko lu mu nu tere nu bokk yàlla ne waa baax na comme man maa màgg moom leen bind leen rëy ba kenn mënu maa gis màgg ba kenn mënu maa gis lu ma leen sant ngeen bañ danaa leen boole mbindeef na yéen lu tuuti ba kenn mënu koo gis te lu mu leen sant dangeen ko def lu leen tere da ko baax mbindeef yi nga xam ne ñoo nekk ci suuf mooy asakay li ci biir géej boo boolee li ci géej ak li ci suuf nga boole leen mooy asakay li ci premier asamaan nga boole li ci premier asamaan li ci suuf li ci géej mooy asakay li ci deuxième asamaan nga boole deuxième asamaan premier asamaan géej ak suuf nga boole leen ñooy asakay li ci troisième asamaan nga boole lool mooy asakay li ci quatrième ba ba ba ngay dem septième asamaan mbindeefu sunu borom wax ne du jeex du te li xam ci kii ngootoot la kii kii bëy la kii nangam la di ko ba lima lim ba ba mu jeex fii ne koo ci laajoon kuy jaay xam-xam nga ne ko mbindeefu suuf yi ci kaw suuf yi ci suuf te nekkuñu ci géej gi ñaata mbindeef la waxuma cib lim da ñaata xeet laaj nga ko lu mu dul tontu nga dem ci biir géej noonu moo tax waa ji ba mu duggee ci biir géej gi ci gaal gi gaal gi di daw géej gi gaal gi di daw ba géej gi yëngu waa ji ne ah, géej yaa ngi bëgg a bàkk jàkk de xanaa xamoo ni dalal xanaa xamoo ni géeju xam-xam a nekk ci sa kaw géej gi ni rëmmu toog dal géej gi yëngootum naa <laughs> yaakaaru naa da dal de géeju xam-xam a nekk sa kaw di dalal gaal gi daw ba yàgg benn jëmm ni ñu xeet ci kanamam ñu ko géeju xam-xam damaa am gag bëgg di la bëgg di la ko laaj bëgg nga wax ma ko mu ne ko luy gag bi mu ne ko gàgg bi de mooy waaw jigéen suñ ko takkee mu am jëkkër ba yàgg yàlla masaxu jëkkër ji mooy mu alak ko soppi ko nekkatul nit ndaw si ndax day jàpp yidda walla du jàpp yidda ak suy jàpp yidda ndax yidday ku jëkkëram faatu lay jàpp wala yidday koo xam ni dañ koo fas dégg ngeen lim ko laaja mu ni pat mu ni ko axaa dootoo géeju xam-xam mu ni ko ah loolu da xaw ko mu ni ko pour ma wax la ko nag da ngay nangoo bokk ci samay taalibi ci waxin maanaam pour ma wax la ko dangay nangu ni doo géeju xam-xam daan ne ko su fekkee yàlla dafa soppi dafa mere góor masaxu ko soppi ko su ko soppee loo xam ne day dund comme par exemple mu soppi ko lu mel na golo wala aw fas walla aw nag wala yu demee noonu wala mu soppi ko jiit wala gunóor moom na fexe bu mu ko soppi jiit moom jiit laa gën a ragal ci lu yàlla bind jiit nag moom laa ci gën a ragal mu ne ko bu dee da koo soppi luy dund su boobaa ndaw si day jàpp idda waaye idday ku ñu fase lay jàpp su ne yàlla dafa koo soppi lu mel na aw doj wala lu mel na bant wala lu mel na weñ wala yu demee yoo xam ne amul ruu su boobaa day jàpp idda waaye idday ku jëkkëram faatu lay jàpp ne ko li nga xamul yow géeju xam-xam boolee ci boobu bu ëllëg pour wax la ni mbindeefu sunu borom yi du jeex du xaaj ci lenn génn ci asamaan ak suuf benn dof day dox ba yàgg mu fekk benn buntu kër ñu bind fa salma siita dof bi nuyoo ni lii ku ko bind ci buntu kër gi buñ fii ñu ne ko ah, borom kër buntu kër borom kër gi day moo bind ci bunt bi salma siita mooy laajal lu la soob te loo ko laaj mu toon mu ne woo leen ma ko mu ñëw mu génn mu nuyoom ne ko yaa bind lii salma siita bi laajal lu la soob mu ne ko waaw waaw fii de loo fi laaj tontu nga ma mu ne ko nu mu tudd dof bi nu ko nu ma mu taxaw di ko xool ne waa ci dëgg-dëgg xaw mun ko évancé ko far ko mbindeefu sunu borom lépp génn asamaan ak suuf yàlla moom moo bind asamaan ak yàlla moom moo leen woo pour bëgg ngeen topp ko li yaax fi na ngir na jéggal lakum ñeen leen min zunubikum seeni bàkkaar wa yuaxirukum mu yeexe seenu mbugal ilaa ba ci dig musamman buddi bu ñu tudd te mooy faat xaaloo ñu wax ñoom yéefari ni in antum déet yii ñii duñu woo illaa basarun lu dul mbindéef rekk rek mislu naa comme ñun waaw comme yéen dañuy dem marse ngeen di dem marché ñu bokk meetar yu ñuy dagg di ko sol bokk mbaxane yu ñuy sol jamonoonte ñu daan football fii ci mbedd mi ana ban ngëneel moo am suñ digg ak yéen ba ñu war li ba nga tey ba tey yàlla war leen a def lu toll nag yonent ngeen war noo war leen a gëm lii tax ñuy ñàkk xam nitu yàlla nee naa leen loolu ci la bokk futbalandoog moom duggandoog moom koñ bi di rongo demandoo sanc yéenay demandoo alciir yéenay demandoo yéenay demandoo yéenay demandoo kër kabaas yéenay demandoo kër sëriñ Louga du tee bis yàlla mën naa roof ci moom loo xam ni même su ngeen fay demit dootu leen bokk idée c'est très man ngeen fay dem di bokk idée ba pare mu am xaasiya boo xam ni ñëw na ci moom te jotu ñëw ci yow léegi nag ñii nii yéen naka lañuy ñuy mën a defandoo lépp ngeen wàññeeku yéen maa antum in antum déet yéen illaa bason lu dul ay mbindeef ngeen kese kese mislu naa comme li war a sir woote bi mooy turiidoona da ngeen a bëgg antu naa ngeen dëdd loonu ammaam wacc fa la nga xam ne kaana nekkoon na yaabudu doon jaamu ko a baaw naa sunu bàyyee te mooy xërëm yi da bëgg nu bàyyi xërëm yi yi nga xam ne sunu maamee sunu bàyyi moom lañ doon jaamu te lool du neex deret duñ ko man comme nag ay yonenti ngeen faatoonaa da ngeen nu indil bi sultaanin ci ay lay mu biinin yu leer naññ yi wane ne ay yonenti ngeen loolu daal lañu bëgg xaala daal di wax lahum ñeen leen ko wax rusulum seen yonent ya ni in nu déet ñun illaa basarun loolu ak ay mbindeef lañu wax ngeen dëgg de mislukum comme ni yéen comme ni ngeen ko waxee noon la amee ay mbindeef lañu comme yéen walaa kenn la fa nekk allah yàlla yamunu wax jaa ngi ay mbindeef lañu comme yéen waaye yàlla yamunu mooy xéewale alaa man ya saaw ci képp ko wax a neex na ko min ibaadi ci jaamam yi yàlla mooy seet lu ko neex mu roof ko ci kooko kenn du ko yëg wa maa kaana yal ya yelluwul jaaduwul lanaa ñeelnu an naatiyekum ci ñu indi leen bi sultaanin ci benn lay buy wane ni yonent lañ illaa bis ni laay lulu ci ndigalu sunu borom kantaa ñu leen di wan benn kéemaan mënuñu koo def te yàlla santunu ko ñun daal xam nga ngeen gëm ak ngeen bañ a gëm li nu war mooy ñu woo leen waaye la ca des nag mooy wàlla laay ci yàlla kepp rek dong fal yatawakkal ca la war a sukkandiku almoominuuna way gëm wama lanaa ñeeluñu wama ana lan bokk lanaa moonu ñeel an laa natawàkkala ba du ñu yokk a sukkandiku alalaay ci yàlla ana lan mooy tee ñun du ñu gën a sukkandiku ci yàlla ana lan mooy tee du ñu gëm yàlla du ñu gën a gëm yàlla waxat te ci dëgg-dëgg hadaanaa jubal nañu subu lanaa suñu yoon wii yàlla teg nu ci yoon wii muy xéewal gu mata xéewal gu réeréy lan mooy tax duñ ko gën a gëm li ngeen nuy def nag duñ découragé loo wala nas biran na giñ naa ni ñun yonent yi yonent yëpp ay bu ne wax na lii daanu muñ alaamaa ca la nga xam ne asaytumoo naa yéen a ngu nuy lor li ngeen ñuy def ci ay lor ak dinu nu weddi di fen loo di def naa ay njabar lañ lépp daan ko muñ wàlla yàlla képp rek donc fale la war a sukkandiku al mutawakkiloo na way sukkandiku ñi waxaala wax na lësina gaa ña nga xam ne kafaroo weddi nañu li rusulim ñeel seen yonent ya xam nga lan lan wax yonent yi bi ñu demee ba amatuñu pexe dañ leen ni yéen la nuxrijannakum giñ naañ daañu leen génne min àddinaa suñu réew mi da génn réew mi de aw la boog la taxoon dunna danañ leen delloowaat fii millatinaa ci suñu diine ji soo déggoo dellowaat ji day mel na yonente yi dañoo jaaruñ ci kéefar ak jaamu xërëm waaye déedéet maanaam ñoom comme ca lañ nekk dañ ne daañ leen xëcc ba ngeen nekk ci mooy tax ñu tudde ko baatu delloo wa qaala wax na lazina kafaru li rusulihim la nuxrijannakum min ardina aw la na wala daañu leen delloo fi millatina na suñu suñu diine ji suñu aada ji fa aw xaa daa wax daa déey moom yàlla rabbu kan moo déey rabbum seen borom ilayhim ci ñoom yonent yooyu yàlla déey yonent yi ni leen bu leen leen tiit ci loolu dana leen alak dana leen génne dëkk bi dana leen jéem a yóbbu ci jaamu xiram loolu bu mu leen metti la nuhlikanna giñ naa ni ñun yàlla daañu alak azaalimiina mboolem yéefar yi mboolem tooñkat yi leen di tëkku ci côté boobu te suñu paree na nuskinannakum giñ naa ni danañ leen dëkkal al arda ngeen moom réew mi leen war a génnee yéen te ngeen wax ji est-ce que <laughs> min baadihim gannaaw ba ñu leen tëkkoo ba ñu duma leen ba rey leen bañ jeex ñoom ba noppi saalika alak ñi nga xam ni ñoo fi nekk jële leen fi indi fi ñi nga xam ni ñooy jullit ñi ñu not suuf not àddina moom ko loolu li man ñeel na kon xaafa ragal na maqaami sama taxawaay sama taxaw sama daraja wa xaafa mu ragal wi waid sama tëkku sama mbugal wastaftaxoo yonent yi sàkk nañu ndimbal ci yàlla tekk mu yàlla dimbali leen ci nit ñu bon ñooñ waaye waxaaba pert na kullu jabbaarin képp aji mbëru an yi din ku di jëlgati kat képp koo xam ne day jaay doole waxaaba kullu jabbaarin an yi bu gaaw ci not waxaaba kullu jabbaarin an yi din yàlla ne min waraayihi nekk na ca seen kanam xam nañ xaar rek nekk na ca seen kanam jahannamu safara jahanam daañ fa dugg de te wa yusqa def na nàndal leen ñoom yéefar yi ñu duggee biir safara daañ leen nàndal min maayin ci ndox sadiidin bu mbiru sadiidin bu wànjaru min maayin sadiidin min maayin sadiidin mooy ndoxum mbir ndox moo xam ni dëtt lay doon ju ànd deret di jóge ca ña nga xam ni ñooy lakk ca safara di rogalaat di wersi ji fële tàng jër salte suñu maree ca lañ leen di jox ñu naan ñoom ñu nekk safara moo tax wa yusqa min maa in sadiidin yatajarrawhoo daañu ko guuxal kon kon duñ ca màndi sax yaakaar du xaw tuut sax duñu xawaa sax yu si xoo di ko mën a wanaasu ndax metteeg tang wayati dana len dikke al mautu ga firi nan la nit di nek safara pare wala àjjana di de da nga nan wayati dana dik ci al mautu luy waraluk de lo xani bu doon fee da di ray min kulli makan ci place bu ñu mën a ci bir safara te fekk te yoo wamaa huwa de ñom bi mayitin muy tax ñu de ndax bu ñu nopp luy waraluk de dana ñew ci ñom <laughs> <laughs> ci yalla yalla ni mi wax wa al maut wa dana dik ci nek sabar al maut luy sabab de min kulli makan ci anam bu mu nekk nag wamaa wa déet mom moomu nag bi mayitin muy tax mu de ndax bu de nopul wa min wara'i nek na ci gannaaw bu leen joxe deut ju tang joju nga xani day guri seen biir seen di jaar sin seen yi di bu di bulleku di di rogalat ci bir safara ta du tax ñu de ginaaw loolu top na ca asabun minin bugal khalisun bu gëna metti bu top ca bob hmm. masalu lasina misalum gaaña nga xani kafaro dañu weddi bi rabbim seen borom amwalum seen jëf ya karamaadin day mel na dóom boo istadat uppuna tarna arihu na ngelaw la ci upp gum ko upp fi yow min mu tombeeg bis sefin bu mbóoya lol da naa degulen loolu mooy ñiy déglu mooy yàlla nee na ñi nga xam ni dañoo lànk bañ a gëm yàlla lànk bañ a topp yàlla satteen yi ñuy bënn di ko jox jullit ñi ak don yi ni joxe di ko dimbulee ak sarxa yi ak tëli yi ñu fiy def ak lu mën a doon comme gëmuñu yàlla képp ku mën a jëf lu baax te gëmoo yàlla sa jëf joojee niñ ko mën a misaale mu ngi mel na ñu dem ba ci tund wu nekk ci digg àll nga dem ba ca njobbaxtanu tund wa nga daar di fay xëpp paanu paanu dóom ba pare dem nga def ko nag ci bis boo xam ni dafa mbóoyeen ngelaw li bare lool soo demee ba ngoon boo tunee jaaraat fa doo fa fekk dóom mooy li mu misaal foofu mooy loolu joxe ci lu baax lépp def ko ci lu baax ci sarxeeg may ak bënnitee na lépp su yowmal xiyaamee duñ ca gis dara mi ngi mel na paan nga nga fa sotti woon ngoon nga jaaraat ko hmm. fekkoo fa dara ñoom itam loolu ñu def ci lu baax lépp yow man xam du fa fekk dara comme gëmum hmm. loolu la wax foofu moo tax mu ni masalu le si ne misaalum gaañee nga xani kafaroo dañoo weddi bi rabim seen boroom amaalum seen jëf yu baax yooyu ñuy jëf mel na jokk bokk gaag dimbali gaag yooyu yëpp kanamaa din day mel na dóom istarat boo xam ne tar na ariihu ngelaw la bii ci ëpp gëm ko ëpp fii yamin mu ëpp ko ci bis nag aasin boo xam ne mbooy ma dafa tar ñoom laa yàq di roona duñu am ñoom yéefari mi maa ca la nga xam ne boo fàgg woon nañ ko ci jëfi àddina ala sayin ci dara lañ jëfoon ci àddina duñ ko fa fekk dara sunu borom saalika di financé te gëmoo yàlla saalika joxe sa alal ci wut rek koomu àddina walla boog ku la xam waaye defoo ko te yàlla tax waaye daal même yàllaa tax sax waaye gëmoo yonent bi gëmoo yàlla saali ta joxe sa alal bamu jeex ci luddul yalla te gëmoo huwa ci deug deug lol loolu moy sanku tega lol dal moy mooy alam tara alam tara xana xamulo xana gisoo a kay gis nga ni ana naka yalla khala xamoo bind asamawaati asmani jurom ñaar wal arda ak fi jurom ñaar bil haqqi ci deug in yasa bu neexoon sunu borom yushibkum mu alal leen yóbbu leen yéen nit ñépp ba kenn dootul des ci asamaan ak suuf wayaati mu indi bi xalqin ciy nit ciy mbindeef jadiidin yu bees bu neexoon yàlla xarak bëyëg nit ak nag ak yépp dara dootul dox ci kaw suuf balaa mooy am seconde yàlla indiwaat fi yeneeni mbindeef yeneeni nag yeneeni xar yeneeni bëy yeneeni nit wala saat mu indi fi yeneen sax yu gën yooya wama saalika déet jële fi ñépp indi fi ñeneen bi asisin muy jafe alalaay ci yàlla loolu jafewul yàlla da wa barasoo génn na ñoom mbindéef yépp jami an mboole seen li laay di ñeel yàlla fa xaala daal di wax nag addoa faaw way way doye ña nga xam ni ñoon ñooy topp li la si ñeel gaa nga xam ne istakbaroon ñooy ñooy réy réylu nii naa naka ñun kon naa nekkoon nañ tabaan doon topp lakum ñeel leen faalaantum mo ndax yéen ñi mox noona mën ngeen a jañ an naa teggil nu min asaabi laay ci mbugal suñu borom min sayin ci tus ñi nga xam ne ñoo ñàkkoon fayda dem di topp ay mbindeef na ñoom bu yowmal xiyaamee xuloo ba tàmbali na dañuy daa jekk ba yàgg ñëw daani waaw ñun day dañ noo war a duma dañ noo war a mbugal ci topp gi leen doon topp ndax yéen ñii man ngeen fexe ba duñu duma duñ ñu mbugal xuloo ba daat jolli ñoom ñi doon toppee ñoo yërëmtal di wax lool de waxaaloo daat leen di tontu ña nga xam ne ñoom lañ doon topp naan law hadaana xam ngeen ni da ngeen noo toppoon ci coobare waaye bu doon jubal nanu allahu yàlla la hadaynaakum kon ñu jubal leen déggu leen li ñuy wax de law hadaana allahu la hadaynaakum yéen da topp da leen a neexoon rek ngeen topp nu ci àddina waaye xam ngeen ni ñun jubunu woon su doon danoo juboon kon yéen ba ngeen toppee da ngeen jub seytaane daan ni cëpp seen diggante daan eh, xaaral ma àttali yow mii bëgg ko la topp te juboo woon maa la xiirtaloon ci ne wooteel danga ci am xéewal nga woote yow mii yéen ñi nga xam ne yéen a toppoon waajee te xamul dara gindiwu leen ngeen topp riir maa mbalax ma man maa leen waxoon ngeen topp ko maa leen diggoon ni dana leen texel bu ëllëgee yéen ñaar ñëpp nag naxee mbaay man mënalu leen ma dara li ma yàlla di def def na man manal naa leen ba dugal leen ci guddi gi yéen nag mënalu leen ma dara yàlla mi may manal def na ma li may def ba pare te mooy lakk ma kon nag yéen ñi nga xam ni yéen a doon woote pour ñu topp leen te du ngeen dara ak yéen ñi nga xam ni yéen leen topp gis ni ñuy dun dara ngeen topp leen ku ci nekk maa def ci sa xel ne sa morom da lay jëriñ ma digle lol nang ma leen digoon tey mbalee naxé mbaay waaw wa tax balantum wax noonu amna min asabillah min shay'in ñom ñi doon topé ndaysan ñoo wax lool ñi ñi doon top di len <laughs> law hadana allah bu yalla jubalon da la na ko ni jubal le mo la xamal ni top ci ku jubul musiba la nit bu bëggee jub day top ci ku jub nit su bëggee xam-xam day top ci ku am xam-xam nit su bëggee jub danaay wax ne nag la koy nuru tadu moom mën naa wàcc ñi ko xàmmeewu waaye xàmmee ko ba pare topp ca te xam ne la ngay seet du loolu ci ndox munu ko weesu ak ndox munu ko weesu xam ne li ngay seet du lii ba pare nga continuer di ko fa seet seet loolu gis yàq yàqtaal seet loolu gis yàqtaal muy gisee Sénégal coow li bare coow li boo gisee mu bare dafa am ñu gas ba pare am seen teen bënn ñu cay naan am ñoo xam ne ñu ngi gas te seen teen bënn bënnagul te lu ñu gas bëgguñu koo sànni fële ba seen teen di bënn mais dañoo bëgg lu ñu wàqi sotti ko ci biir teenu ñii pour mu sakk ñii nag ni leen bu ngeen ko bëggee bu ngeen bëggee seen teen bënn itam li ngeen di gas soti len ko fële ya xay way bu len ko sotti suñu biiru te te dina la wax len jigen jo xamni jigen jo xamni ku ne beug nga nek ab aawam sëykat déggu leen ma de jigen jo xamni kenn ben jigen bu nek beug nga mu nek sa ba nga meuna wujje ak moom xam nga ni kat la boo ko déggul mooy ma indilaat laat la beneen message mooy nit koo xam ni première boo xam ni ku ne nangu nga koo deuxième nangu nga muy sa deuxième mooy première kenn ku nekk xam nga ne buñ la xëccee ci côté nga ne man leer na ma ne man maay première mais wóor na ma ni diwee sama deuxième keneen ni beru fële ni man da maay première mais diwee sama deuxième mu tudd kawaaja tuddoon keneen dem ni man maay première mais di wéy sama deuxième ñoom ñett ñu bokk kenn ku ñu tudd ñoom ñett naan ree ñoo xam nañ ni koo koy première hmm? moo tax woote yomb na ñu wuy si la yomb na xam nga lu jafe war a woote woote ñu war laa wuy si wuy si la ba pare la tax ñu wuy si la nga def ko ci ñi la wuy si hmm? woote woote yomb na di woote Michael Jackson ku ko ëppoon mbooloo daa woote rek am ñu ko wuy si Sénégal gii am na ñu fi woote ñu wuy si leen mais ci woote kana li mu woote lan la ñi ko wuy si ñan lañ lañ fa fekk lan la ba ñibbi lañ fa jële lu mu àll bi yaatu na bare nay rab waaye bu ñu ñibbi ku nekk rab wa ngay gàddu àll bi yaatu na bare na ay rab yi bare nañ waaye bu ku nekk rab ngay gàddu am na ñu fetal sokkeer am ñu fetal naat am ñu fetal kooba am ñu fetal wax ximaaru wax si mooy seebar waaye yàpp na la tuuti ba pare neex dana tuuti ba pare neex boo weddee laajal ka jàppoon përëntaan ba mu suppee ab reeram yaatuwul da waaye ku yor sa loxo bëggoo mu jeex hmm? waaye jàppal ni yàpp dana bare ba pare neex de boo ko weddee laajal ka jàppoon seeba wala ka fetaloon gëmmeen su ko defee wootekat yi bare nañu mais ñun ñi wuy si nan nitee te xam nga lan moo gën a metti ci àddina ni nit da fen ba pare sa conscience naan la dangay ngay fen déggu leen ma mm-hmm. waaw yow yaa ngi naan diw da ngay fen sa confiance ñu la dangay ngay fen ko defee ñu bàyyi xel loolu Sénégal nañu bàyyi xel ay bii law hadaana laahu la hadaynaakum sawaa'un alaynaa ajjasi'naa am sabarnaa maa lanaa min mahiis ñun su fekkente ni bii ni danoo xéewal yi dafa ñëw ñu muñat ñu bañ a ñu topp ak ñu bañ a topp min ma maalanaa min ma xiichin fu nu mën a jaar pour raw pour rëcc tey mu amatul su ko dee waxaala daani cipp ci seen kanam a seytaanu lamaa ko del amru ba nga xamante ni xuloo ba jeex na ba werante wa jeex ñiy dem safara war a dem safara ñi dem àjjana war a dem àjjana diggante boobu nag ba coow la amee ki topp ki mu waru woon a topp ak ki woo ki mu waru woon a woo seytaan yi yéen ñëpp maa ko defoon inna laa naka yàlla waadukum tey dig na leen waa dala ak ci diggu dëgg wa waatukum man digoon naa leen <laughs> seytaan yi wax de inna laa waadakum waa dala ak yàlla digoon na leen diggu dëgg wa waatukum fa axlaftukum man digoon naa leen foose leen mbële naxee mbaay wa maa kaana lii maa kaana nekkul lii di ma ñeel aleykum ci yéen min sultaani benn lay bu ngeen ma mën a note ilaan daawatukum ndaree mu man woo naa leen rek parce que def tum ngeen wuyu lii ñeel ma man dafa leen a woo rek ngeen ñëw ci man defuma leen dama leen a woo man seytaane rek ngeen ñëw kon kay falaa tuloo moo ni bu leen ma yedd yéen waloo moo yedd leen an ko seen bopp maanaa din man tey bi musrixikum may ku leen xettali wa maa antum déet yéen ñi itam bi musrixi ya ngeen di ku may xettali duma leen xettali du ma leen du ma leen xettali du ngeen ma xettali indi naka man kafartu man corrigé naa trop weddi naa trop bi maa ca xam ne asal tumooni bokkaale ngeen kook man min xam lu jiitu lii te mooy ci àddina yéen man man xeet naa leen trop ci bokkaale ngeen bokk yàlla inna zaalimiina naka way tooñi te mooy yéefar yi lahum ñeel na leen asaabun mbugal alimun bu tarta metti wow doxi la dugaleef keroog àll si na gaañe nga xam ne amanoo gëm nañu waamiloo ñu jëfe asaalaati farataak sunna fan lañ leen dugal jannaatin tajri min tahtiha al anhaar àjjana joo xam ne pale ya ndoxi dex yaa nga cay daw xaali diina mbirum nekkam ñuy woy béel fiyaa ci biir àjjana waaye bi isni rabbihim ci ndëgal seen borom tahiyatuhum seen nuyoo ba fiihaa ci biir àjjana nuyoo yàlla nuyoo malaakay mooy salaamun jàmm jàmm rek jàmm rek salaamun jàmm mucc salaamun xéewal rekk loolu rek day xanaa moom lañ fay dégg yàlla commencé di jox misaal ci gëm ak ñàkk gëm ñu àllam tara xanaa gisoo akay gis nga kay fa daraba naka la sadde allaahu yàlla masalun aw léeb kalimatan ci baat tayibatan ju teey te mooy laa ilaha illallah nee na baat bu teey boobu di laa ilaha illallah ni mu la ko mën a misaale ka sajaratin day mel na garab tayibatin bu neex lool asluha ca bànqaasu garab ga maanaam dàttu garab ga saabitun dafa duutu ci suuf ba faruwaa caru gam caru garab ga fii samaa yi mu nu cot mu nu collet coggat jëm kaw asamaan tuuti deef na jox ukuluhaa lekkam nga meññantam ba day ñor ku lay bépp jamono bis ni rabbiha ah, ci ndigalal boroomam waaye waaye dri bu dama ngay dóoraat allahu yàlla ala am saala léeb ya misaale li naa si ñeel nit ñi laa lahum mbes lee yéen bëgg rek yéen yata sàkkaroon a ngeen fàttaliku yàlla waaru gëm yàlla wa masulu kalimatin misaalum baat ba xabisatin ba di aji bon te mooy baatu weddi baatu kéefër ñi mu la ko mën a waxee te sajaratin day mel na garab xabiisatin gu bon garab goo xam ni ojtu sat déjjéef nees ko min faw xil ardi tu jëlee ko ci kaw suuf maa lahaa déddeeti ñeel garab ga min xaraarin benn reem su ko defee mooy baatu kéefar yu sàbbit day saxal allaahu yàlla lalla si na gaañaane amonoo gëm nañu yàlla day gën a dëgëral bil xawle ca wax ja saabiti ja daa ci sax mooy baatu laa ilaha illallah day gën a sax bil xayaati ci dund ga addunyaa ga daa ji jege jeex te mooy àddina wa fil axirati ak ci àllaaxira wayu dilu dana sànq ci maanuteen allahu yàlla azaalimiina way tooñ ñi wa yafalu dana jëf allahu yàlla maa yashaaw lépp loo xam ne loola mooy la neex su ko defee ngeen baal nu àq ñu yem foofu ci alquran bi yal na yàlla fekke na ko ay déwéni déwén ñi ngi sant nag mboolem ñi nga xam ni moom ñi ngi toogoon di teewlu di ñu déglu te loolu dara jiituwu ci ñii suñ bokk internet yi nga xam ni sunu kàddu yii yu ñàkk solo yi ngir sunu jëm ñoom jàppe nañ ko lu am solo ngir li muy waxe sunu boroom doontelee sunu ñàkk solo jëmm ji àggul ci mana faram-fàcce li waye ñom jël nañu li diko ko diko toxal ngir maggu alquran te mu xalaat bi mi ngi jógee ci sey ma jooja caam mii wax ma mané ko ren day comme wéré diwa dama bëggoon rek ma to ci mbolem ñi nga xamni ñoo doon tal seen loxo di ñaan yalla ci sama yaram yi ak sifa ak safara ma ngi leen ci sante di leen ci gëreem ñi bind nañu ñi maas nañu ñi dugg nañu xalwa ñii sarxe nañ lu ne def nañ ko yéen ñëpp nag yàlla na yàlla fay leen muy dëkk bi ak li war a dëkk bi ñëpp dañuy geenu golo gudd na waaye loo ca laal rekk boroom yëg ko ma leen ngalla boo joggee ci kaw kon la koy gën a yëg ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ma Majooja Caam ñu ngi lay sant ci xalaat bu rafet bi nga am di sant

ñoom ñii fi nekk di sëñ Ablaye Lo ñoom ñett ñi ma lim ak ñoom sëñ Mbay Sarr mi nga xam ne ñoo yor whatsapp bi groupe bu daara ji lay jàll ñoom ñëpp amul kuñ ci jox benn dërëm pour connexion lépp ñoo ko defal seen bopp kon yàlla na yàlla fay leen ci barke alquran yàlla na yàlla teral leen barke alquran ñi ci yor ay télévision sëñ Ousmane sëñ sëñ Ablaye Lo télévision bi yàlla na dem ba gën a siiw ci télévision yi Sénégal bu àddina bi sax yàlla mën na ko ci barke alxuraan te lépp jur njariñ ci yéen ak ci kaw xeet ndax télévision léeg-léeg muy jariñ borom waaye du lor xeet yéen yàlla na seen télévision bi di jariñ borom yéen ñii borom mais di jariñ xeet wi nga xam ni ñooy peuple bi di ko dégg ñu sant nag jiite ci cant gi waa garde jaañ gi nga xam ni ñoom ñoom moom tafsir bii li tax ma wax ko mooy biñ ma joxee ndigal ci ma tafsir ci su may kilifa dafa am jàkka jumaa ju taxoon ma jóg ñoo ñëwoon ci man wax ma ko ba amee lu ci dugg ñoom ñu ñëw ni ma lañ doon tafsir kat bañ doon bëgg a def nangam nangam nàngam xëy na loolu seen ngànt la ma nangul leen ngànt loolu bu baax a baax la ca dugg mooy ngànt moo ñëw man leen man nag comme amoon naa ci ndigal ba pare bu may toog sama bopp sax danaa ko def faf yàlla sëñ Mor Jaañ ñëw ni ma ah waa gàdd kat ñun dañoo bëggoon kun tafsiral comme bëgg nañ kon tafsir tey yaa ngi doon bëgg a tafsir fee occasion ñëw na loolu moo ma yóbbu gàdd moo jur tafsir bii feebar bi am a tax ñu koy def ñii di ko def saaru ko ma laayif ngeen koy xuma loolu mais dañ daan toog ca jàkka ja ñoom ñëpp ñu génn Baye Moussa Diagne ñoom ak Baye muuru Diagne ak mboolem magi gàdd ñeeg ak Ibrahima ñoom ñi mag ñi wër foofu yëpp jigéen ñi dañu daan ñëw toog xale yi ñëw toog kon ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen sant di leen gërëm xam ni lii di ji beral nuyoo euh, imaam Mor Diagne ndaxte loolu moom mooy kii toggoon tafsir boobu te ba léegi ñun xamuñu soppeeku. Hmm. tafsir booba fii ba tey mooy jumaay gàdd lii ñoom ñoo moom tafsir bi ci doy na ci xalaat bi ma ko jooja waxee dama ko demal ci moor ndax ñoom ñoo moom tafsir bi mooy def jaayante naa ko ñoom ba pare ñoom ñu joxe ci seen xalaat d'accord ci kon ñoom ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa daara ji euh, di sant suñu yaay ju baax ci gàdd muy sunu yaay soxna Awa Guèye ñu ngi koy sant sunu yaay la waaye mi ngi ñu topp ak mboolem maire yi nekk ci gàdd di sant soxna Kaana Diagne ak soxna Khady Sarr euh, soxna Guèye Mbarka sunu rak ma nga ca Semang Cissé jaal njaay ñoom ca euh, daabaay dégg nga ak euh, sunu professeur Serigne xalifa Dia di ku baax di professeur di boroom xam-xam di ku ñuy suivre di nu bàyyi xel di nu xelal ak oustaz Mbay Wàdd ak Serigne Maam As Fall ca ca Barñe euh, ak Mohamed Thiandoum ca ca Tëngéej ak Serigne Jëmil Sarr ñoom ak Amadou Ndongo Omar Ndaw ñoom nga xane mom itam ay groupe bi groupe la koy dugal ak serigne Moustapha Ndaw ci ndimbu Ndaw serigne Moussa ñang serigne Cheikh Ndiaye ak Pawad ci euh, Nayobe ak ñeneen ño xamni ni ñi limul ah ñu sant dam du yomb ci Europe ndax itam am na lu mu def ci tafsir bi am na ci taxawaayam am na ci ko xamni mi ngi ma dam rek xamna dam da ko dam yen ñi deg dam moy yat boko ko yettee ba mu weñ ba mu tàng koy teg ca kaw di ko ci rëdd ba mu am ay rëdd dese yu ñuul yu rafet loolu mooy daam ci olof xam naa daam dalaa daam tax yaa ngi koy sant rek ko defee ñu sant leen yéen ñi nga xam ne yéen ay déglu tafsir bi chaque jour ngeen di nu bàyyi xel ñoom Serigne Cissé ñoom ci ñeem euh, ñoom euh, Serigne taale si la imam ci ginnaaw raay ak sunu Serigne Serigne As Ngom ñoom ñëpp Serigne Serigne Pape Sey ñoom Ah, ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp tout le monde damay bañ di di di di ko wax di ko wax di ko wax ak sama professeur euh, Fall ah Cheikh Ma Mbay Cheikh Ma Anta di ku bëgg alxuraan man maa ngi koy seetlu ku bëgg alxuraan fépp fu ñu mën a teew ci alxuraan fu mu dégg yëngu alxuraan dana ñëw ñoom Oustaz Balla tout le monde ñoom nogay sunu woykat bi tabaarakallaahu ah di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax ni yàlla na leen yàlla fay ci barke alxuraan sunu mag ñi ñu daan gunge ci tafsir bi yàlla def ñu màggee yàlla na yàlla yàggal leen ci sunu kanam ñoom ñoo daan maam Modou Guèye di imam ak sunu xalifa Diop ak sunu baay bu baax ba di ki ak góor gi Abdourahman Ba sunu baay bu baax góor gi Abdourahman Ba hmm. xam naa moom daal nit ku fonk alxuraan la ku yàlla may itam ci alxuraan ku koy bàyyi xel bu baax a baax dëkk bu waaye mën a nekk ak sa taxawaay jot nan ko xam nan ko te sunu yéene àgg na ci bëggoon leen a tudd jëmm par jëmm sant par sant waaye sant sunu boroom yàlla na ko jël aku ngërëmam làmbu leen ko yéen ñëpp ci barke alxuraan ci barke weeru koor wii su ko defee loolu sax xeeb nanu ko ma dellu si waat rek ci euh, gàdd nañ ma leen nit ñi ñaanal jàkka yëpp ñu ngi ma doon ñaanal ñu doon ñaan waaye ñoom Baye Moussa waxtu wu nekk ak ñoom Imam Mor ñi ngi ñanga ca di wax nañu ñaanal nañu ñaanal Daawuda nañu ñaanal Daawuda yaram wi nag seen ñaan yëg na ko seen ñaan yëg na ko xam naa seen ñaan moo ëpp doole yeneen ñaan yi ndax nag boo feebaree ñaari ñaan day am waaye nag seen buus moom gañe na yee ci des ba ba muy neex yàlla nag lépp ci sunu boroom la sunu boroom ñi ngi ci ànd ak moom ak ngëm bu baax a baax di ñaan sunu kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo dawlu yal na yàlla yërëm leen ci barke alxuraan gannaaw sunuy waajuri bopp ndax lu nekk ci ñun ñii sunuy waajur la ñoonu jur yar nu ñaanal nu jàngal nu wàññeeku nag teg nu ci loxo yi nit ñu gore muy alxaaji Racine Mbaye mu baax ma mu gore ma mu yaatu ma boroom xam-xam bu rëy ba boroom wilaaya ga mu mu jël nu nag teg nu ci loxob sëriñ Maodo Ja ku gore ku baax kooku nitu yàlla boobu nitu yàlla bu gore boobu nitu yàlla bu am bu am doole bu gore bu baax te tey jii sëriñ Maodo Ja tey jii la anniversaire na tey jii la heure bii ñu toog ni di wax wala bu ko jege taqriban ci la wuy ji woon borom dem pour nag dunde dundi dundi xéewali sunu borom yàlla na yàlla taas ñu ci barkeel te beesal yërmandeem ci bis bi lii du par hasard ku goree ngi noonu ku baax ku yaatu ku am xam-xam ku laabi ku nangul sunu borom ba sunu borom may ko lim ko may man nga kaa mag foofu mu ëpp la cër ci yàlla sëñ Maodo te ci kanam daañu xam ni ku ya ku yàlla mayum cër la ndax borom cër yi ñun xamuñu amuñu cër bay xam borom cër mais borom cër yi ñoonu déey ni sëñ Maodo ku amul cër ku baax ku gore ñu ngi koy nuyu ñu ngi koy ñaanal di nuyu njabootam di ñaan yàlla njabootam gi mu fu bàyyi njabootam gu baax gi mu fu bàyyi gu gore gim fu bàyyi moo sëriñam ba alxaaji Racine Mbaye seen njaboot yiñ fi bàyyi yàlla na yàlla doole leen yàlla may leen kàttan yàlla dafa leen jàmm dafa leen sutura ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sant na ñëpp gërëm ñëpp tey nag ji bi su laylatu xadri laylatu xadri am ko ko opté woon di ko def ba nga xamee ni benn laylatu xadri yënguwul daanaka naka sëriñ ma jooja am jëloon di ko def yàlla rek tax mu am ci taxawaay boo xam ne taxawaay bu dëgër la woon ma defe ne day yokkat léeg-léeg sax nga seetaan ko am at mais day mel na at mi ngi ko seetaane ci la lay xadri bi di ëppee doole ci lay gën a amee pas-pas ci lay gën a joxe gëdd laylatu xadri bi mu doon def nga xam ni kii détermination bi mu ci àndal yàlla rek moo ko tax di def moo ko ne waa jooja yow laylatu xadri bi yow loo ci mu ni daal laylatu xadri bi comme dégg naa ñu ne jànkati ne xayrun min alfi shahrin man loola laa soxla te yéenu ma ko kenn lu du samay waaju kon dama ci ñaanal sama waaju wa bëgg chaque jour chaque année yàlla di ca yeesal yërmandeem ak mboolem ñi nga xam ni ñooy way dawl te loolu at mu ne mu wane ko ni moom ñëpp a ko bokk at mu ne dana ko yaatal ba mu yaatu réel ko ba mu rëy fa tabaarakallaahu ci ci dogalu suñu borom kon nag moom itam nañ ko bàyyi xel ci bis bi xam ni ñàkk a nit ñi mënul fànq laylatul xadri ñàkk a dajeeg nit ñi ndax nit ñi seen ñàkk a daje teewul mbooleem lu ñu waroon a def ci jaamu ñi ngi koy def kon nag nañ ko ci bàyyi xel ku fa mën a dem nga dem fa te dem fa waaw ndax nit nag gis nga man la saalihan fa li nafsihi gis nga nit di yëkkati ci lu baax nga yëkkati sa tool di ca def loolu dafa am lu muy jur day am lu muy waral ci xéewal ci sa kaw yow kon nag nañ fa dem ci moom te dem fa képp ku bëgg xéewal na nga ko wëri kuy dégg sama baat bi na nga ko wër walla nga woo ko waaw na ko wër wala nga woo ko ndax sa yoon nekkul ci tey dañuy togg tey togguñu ndax am na lu muy jànkonteel man mi nekk moom xam naa ne am na yu muy jànkonteel ci wàllu bés bi yoo xam ni dana laaj képp ku bëgg xéewal nanga nga ci def langa man képp ku ci def dërëm yal na yàlla ful ko ci barke laylatu xadri laylatu xadri nag ba yàlla ne xayru minal fi shahrin man laa ci néewoon ay kàddu waaw comme yàlla moom ci boppam nee na xayru minal fi shahrin moo gën junni weer yoo xam ne jaamu nga ko yàlla te laylatu xadri nekku ci man booba laa xam ne amatuma lu ma cay wax man moom daal li ci def mooy di jaamu yàlla ku mën a yor sa kurus ngay yor sa kurus jaamu yàlla ci guddi laylatu xadri gi te yéene ci ma jooja ak mboolem ñiy def laylatu xadri waaye li tax ma opté ko moom ba muy laylatu booba laylatu bariwul waaye nag boo defee lu baax ñu baax ñëpp dañuy toppandoo lu baax li kon nag nañ ci jaamu yàlla te bañ koo yàqaat gën a yokk bennoo bi gën a bàyyante xel gën a bàyyante xel surtout tarixa yi maa ngi ko doon wax toujours du ma dañ di ko wax nañu gën a bàyyante xel nañu gën a xam ni mboolem lépp loo xam nit mu ngi koy wax danga nga ko waxaat ci kanamu sunu borom te bo waxe luddul lola bo duggé ci bammel dang ko reccu so defee luddul lola bo taxawé ci kanamu sunu borom dang ko reccu kon nak su fekkente ni bii ni dangaa far rek tax ngay wax na la lèr ni ka nga faral wala ka tax ngay wax day se beut faddu na ci sey beut kon yow da nga faddu ci ay bët te mom, day bax kamu bax ba tax nga far ak mom war nga mënon ba tax am ñu far ak yow nit bu baaxee ba tax nga far ak moom mm. dafa baaxe ci jëf baax ci wax baax ci pas-pas war ngaa mën a fexe itam ba baax ci jëf baax ci pas baax ci ay kàddu nga yar sa ay kàddu kàddu dañ koy yar waaye li ma gis man xaw ma ko portable jii li ma ciy liir surtout bu loolu dee am xaw ma quartier num li daw ci suuf ci biir biig dama mujj yàgg di ko liir ba yàgg ma man ma tiit ni man est-ce que kon àddina du tukki waxuma la Sénégal mais àddina waaw kuy wax di wax sa yoon nekkul ca la muy wax waaye waaye bul saaga bul gis nga nitu yàlla yi mënuñoo fexe ba du ñu benn nitu yàlla yépp li ma wax naa leen ko lépp naa leen ko ci biir olof ni leen àll bi yaatu na rab yi bare na waaye ku nekk booy ñibbi ak rab bi ngay gàddu léeg nga gàddu mbëtt am keneen ku gàddu mbëtt mais léeg nga gàddu mbëtt am ku gàddu kéwal yàllaa ko moo ko moo ko baaxal kéwal ga te bokk na ci gàtt xel koo gis rek def ni sab sëriñ a ko gën sama sëriñ a raw ci raw ci réew mi sama sëriñ a man ci sama sëriñ man ci réew mi dangaa waxe sa bakkan rek sa sëriñ li mu xam dafa am ñu ko xamal wilaaya gi yor dafa am fu mu ko jëlee yàlla daf koo jox jaarale ko ci ay loxo léeg yàlla jox ko ko direct bi ci des ma bëgg suñ dee wax ci wàllu xam-xam comparation sax warul am ndax muy tarixa bu waaye mën a nekk ka ca bind lam ca bind jullit bind ko woon pour tarixa jullit yépp la ko bindal gàtt xel nag ak gàtt xam-xam mënul weesu nga bàyyi ko ñiy tuddoo tarixa booba yow yëroo ko jàngoo ko xamoo la ca nekk te pourtant ñun ñoo ngi jàng ay sanfara ñu ngi jàng ñu ngi jàng ay ay soraawul jaahiliya la ngay jàngee soraawul jaahiliya ba mu jeex war nga ko mën a jànge téere Sëñ Tuubaa war nga ko mën a jànge téere alaaji Malick war nga ko mën a jànge téere yeneen tariqa yi su ko defee loolu ñu bàyyi ko xel mais nga toog te et bëgg naa boo tëbee ni sama sëriñ mu ëpp xam-xam ci àddina bi war ngaa teg ay preuve preuve xam-xam duñ ko natte dara lu ci borom xam lu dul lim bind parce que li mu bind moom sax na amaana li nga naan moo ko wax su boo demee waxu ko amaana waxewu ko noonu mais nan comparé mbind yi nan teg suñu tegee mbind yi boroom xam-xam yi experts yi ñëw yër mbind yi suñ yëree mbind yi daañu xam ku nekk li nga bind su boobaa lan lañ jublu ci comparation bi du jege ne xeeb kenn de mais dañuy xam ni ñi ñëpp jar nañoo naw ndaxte nit yàlla tarixa bi mbokk ko jitte mu am ba bind li mu bind teg ko booba sa papa wala sa maam ma ngay nelaw wala wi demee non yow fexel ba nga yewu rek nga fexé ba topp seutum bi ndank seutum bu mel na nga xamni na maam ja mel non la mel la wax nak ndax kat kuy gis golo gu tepp nga dakk ko ah legi golo def la leuf ndax golo yëpp ragalu nit ay wax la ci biir wax su ko defé ñu wara a xel bu baaxa baax su fekkee nak jamono ji nañu dem ba léegi ku wax lu baax ñu saga la kon day mel na képp booy wax lu baax ku lay saaga yomb naa àtte kooka bëggul lu baax sooy def lu baax ku la saaga yomb naa àtte kooka bëggul lu baax wax jii may wax nag man la engage ci kàttan yàlla ma di ko wax te man moom ñiy déglu xanaa buñ ma xamul it xëy na man daañu ma ki ndax man lu ma xas jël exemple dama koy wax ñii ni leen lu ma wax moom yàlla na fekk na loola la su dee juumu xam-xam la de danaa wàññeeku reconnaître ni damaa jum ci xam-xam ndax xam-xam moomu ko waaye su ma jëlee sama engagement bopp di ko wax kenn mënul tax ma taxaw ci télé bii di balu àq ak di jéggulu doomu aadama bu yàlla bind mënu ko bu ma la waxoon ci tele bi lu ma la wër ta waxit sa juróom fukki junniy màqaama mënoo fexe ba ma arrière ci li may wax te dinaa ci taxaw te lu mu war danaa ko ci def pour saxal sama wax jooju ndax yàlla rek moo tax man may wax lii may wax du sama xam mais damaa xam réew mi fi mu jëm gouvernement bi maa ngi delluwaat di wax ci moom matuwaay yi ñu am ba sàcc bu sàcc ñu fexe ba xam fi nga sàcc fexe ba xam ki nga jokkool fexe ba xam fi nga woote localiser la localisation yooyu ñuy utiliser nañ ko jël ñu dugal ko ci xeet ku wax lu mu wër wax ñu laaj ko ba xam li wax fu mu tege su amul fu mu tegee ñu sanctionné ko teg ko ci yoon mo gën mu tok di sétane te mujj du mujjé sétane gouvernement bi ma ngi wax ak yeen du ngeen mujjé sétane parce que mbir mi bu aggé fenn fi ba paré ngeen di dooro jog day fekk c'est trop tard xalaat yi ngeen am nak nit ñi mom lañ am di wax ak yeen ta nak juru leen nu jëndu leen nu momu leen nu falu gi ngeen falu it no leen ko fal kon am nañu droit wax ak yéen ci réew mi am nañu droit nunu wax ak waa gouvernement bi ci réew mi ci yar ak teggin nag ndax lu dul yar ak teggin du diine diine lépp yar la ak teggin kon ñun li nu xam te xam ko mooy lii bu jëmee kanam dana am lu mu yàq ci réew mi saaga nit yàlla day waral àddina bu tukki ci waxin day jur bekkoor ci am réew te nitu yalla yi liñ leen di wax jaaduwul waaye yow boo demee ba nitu yalla nga koy wax loolu pour nitu yalla kon gëmoo nitu yalla bi nga nekk su dee nitu da dangaa dem ba jël sa engagement di ko saaga di ko wax loo ko wër ta wax ngir lan am na fu mu bokk kon yow gëmoo nitu yalla bi nga bokk gëmoo nitu yalla boo gisee cheikhuna tidiane il faut ma jël ci moom exemple ndax li ma soxla moo ko wax moom moo ni tarixa bii ma nekk sos ko mooy képp ku ciy dugg bokkoon ak sart yi da ngay màggal bépp nitu yàlla ak tarixa bu mën a bokk kon yow mi ci dugg ci biir di xas beneen nitu yàlla wala nga di ko xeeb dafay mel na sart yi mi ngi lay bëgg a mi ngi lay bëgg a mi ngi lay bëgg a raw bàyyi ko xel mais ñi bokk ko feneen itam nañu bàyyi xelan suñu bopp bul dégg lool rek ndaxte nit nag boo ko engagé lu nekk nga wax ko bu yàggee mu wax la bu dee tijaan dafa jóg lu nekk mu wax ko yeneen tarixa yeneen tarixa yi dañ koy wax mais beneen tarixa bu toog fenn itam di wax lu la neex bu yàggee dañu lay toom kon gouvernement bi li mu war a taxaw nii nii nii nii corona bi dëgg la mais corona yi corona yi mooy wax ju bon ci biir réew ci loolu la war a taxaw ak nag loolu bu dee war nañ ko ko ñaan noonu ko koy ñaan gouvernement bi am nañu droit ci réew mi noo koy ñaan mu bàyyi xel loolu euh, ñi ko fi nekkal ñëpp bàyyi ci xel te jotal kàddu yi su ko defee ñi ngi leen di jéggulu di leen balu xàq di dellu di tënkaat ci sunu wax ni yàlla na nu yàlla jubal sunu nitu yàlla yii yàlla na yàlla fayal nu leen ñii leen fi nekkal yàlla na yàlla fayal nu leen te musal leen ci seytaane ba ñu bañ a fakkastalu yàlla na leen yàlla musal ba ñu bañ a fakkastalu réew mii ñu nekk yàlla na ko yàlla def réewum jàmm def ko réewum naataange def ko réewum xéewal def ko réewum sutura def ko réewum fajuk aajo ki jiite réew mi yàlla na ko yàlla dimbali yàlla na ko yàlla dimbali sàmm ko ndaxte alaaji Abdu daana wax ne ki yor ndaali bul ñaan mukk mu daanu ki la yenu sa ndaa bul ñaan mu daanu wala boog na mu ko daan waxe su fekkee dafa daanu ndaali day toj te su ndaali tojee kat yéen ñëpp yéen a koy bokk kon nag moom mi yor réew mi yàlla na ko yàlla dimbali aar ko ba fi mu bëgg a jëmee réew mi te loola di di njiglaayu waa réew mi yàlla na ko yàlla dimbali ba mu yeggale ko yàlla defal ko jàmm defal nu ko defal ko mbooleem ñi koy jàppale sunu ñi nga xam ne ñoo ngi ci dëkk bii ñoo ngi ci dëkk bii di ñu déglu di ay politiciens di ñeneen ñoom ñëpp ñi ngi leen di sant di leen gërëm di sant sunu yaay ju baax soxna Aminata Mbengue Ndiaye ndaxte nag moom na mu toll ak xéewal bu ak doole la bu ko yàlla mën a jox yëgul doole ba yëgul dayo ba téewul wàcc na ba ci suuf di bàyyi xel nit ñi di leen déglu loolu nag dafa am solo ci am réew gis nga ñun soxla wuñu ko nu may soxla wuñu ko nu sarax sox yalwaanuñu kenn ñun bu ñuy yalwaan sunu mbokki donga yi la ñuy yalwaan ñu dara lépp loo xam nag yàlla jaareel na ko suñu loxo bi ñu war koo am daañu ko am kon lu ñuy wax day doon loo xam ne lu ñu sentir la di ko wax moom day nit ku modeste la nit ku bàyyi xel nit ñi la nit ku ñuy déglu la nit la koo xam ne bàyyi na xel dëkk bii kon yàlla na ko yàlla bàyyi xel ci waxin ndax bu ma ne yàlla ko yàlla bàyyi xel ci waxin yàlla fakkul kenn kon ñi ngi gërëm ñëpp di sant di gërëm sëñ Pape Faye ak na léegi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu